soo publicité gaawal gaaw nga numéro bi 77 254 84 39 sa bay nam latir tey de bëggoon na ñu togg laaxub kajoor toggati laaxub kajoor sa bay ko togg xop kadior mom ci lañu nu dëkk <laughs> ndeysaan yow da ngay kenn ci man bëgg la lool sa bay mhm. dama doon waxtaan ak nuru waxtaanu jamm la jamm la ak salam Mm-hmm. saa baay man ak nuru biñu waxtane waxtaanee mu xamal mu xamal man ni ma moom dafa bëgg jël soxna kodd nuru mu ni la da bëgg jël soxna kodd mm-hmm. ah ndax waxtan nga ci kodd waaw saa baay woo naa kodd nañ ci lu yaatu mom lu mu la wax mom nak xam xamal man ni ma mom tamit bëgg na nuru mané nak bala ma ciy jël dara wala wax ci ben ndogal yow yaa ñu jiite baham suñu kilifa ñu ñep na ci waxtaan ak yow ba xam lan nga ci gis bo ci andé rek ñu daal di leen maye hmm. xam naa ñu bëggante nañu man day du yàgg ba ma jël ko du ba nga jël ko te nii ma la dégge mosoo maa wax lenn loo xamee ni ay caaxaana nga ca wala ay tappale wala ay waruj kon xam nga nooy def da ngay fexe nooru mu ñëw fii su ko defee ma waxtaan ca ak moom ca la ma ca war a waxtaan ak moom ndax su ko jëlee doom la ci kër gi su ko doom la ci kër gi waaye am na loolof njaay wax de mbaa xam nga ni tiim daa taxuta naan sa baay boobu marul rek te pot nekk ca ah, ah dinaa la yëgal fukki mbir ak de mooy que ni picc li mi mën a mën a mën a mën a naaw mm-hmm. ah du garab yëpp lay tong de. dégg naa li nga cax saa waaye bàyyil xel ni nuuru borom fit la te borom fit woote ba yi lu muy dégg ndeysaan te dëkk bu ñëpp sëgg sa ngéem ku fa sigi teen gàccaal nga ñëpp saa baay nuuru den la wus si. waaye nag dinaa la xamal lu bëriwut bu ñu la nee tund wi yaa man yaa fi sut yaa raw te ba nga juddoo ba léegi nga dawal sam xel koo mu sa jàppanteel dan laa jottale say daal xamal ne booba ña ngi lay nax de. dañ lay nax saa baay. ah. dégg naa li nga wax waaye Baye dinaa waxtaan ak Nuuru dina la seet si ndax su fekkee jom rek ak fit ak ngor ak jàmbaar xam naa ko ci moom ndax ñoo bokkandoo benn néegu góor ñoo fa duggandoo ñoo fa génnandoo sabay baay te ñoo bokk yorandoo fii. baax na maa koy nekk jërëjëf saa baay ndax olof de amna lu mu wax. Mhm. lu ci ni yag yag cëb taal daal ki sonu man nako xaar te man noma gis ma def ko ni mak yow. waw te man ji mom ñu ngi sonu bu baax baax. kon baxna mom ñeex jeexut. ciere jeexut. ah sippali du wees. jërëjëf saa baay sippali du wees xam day ah xana dana ci wax ak sa waay bop jele dal ndax waxtaan moom daana siiwal mbir waaye dana waral mbir régler la Yacine te lan la ñaaña man ak yow amuñu nëbboo Latir ma wóolu woon ma foog ne lu nekk la may wax ma dem mu ne ma sama diggante ak moom mënatul nekk ndax sama baay da ñortu ne man ak mom amna na luñ sekk te man ñaña loolu la xamul kan moko mëna wax loolu ma def dafa jaxase sama xel bi dal ndela yaasin loolu la jaaxal man mi nga ci waxtaanal te man mi mako wax waaw yow bëggo sa bakkan man bëgg naa sama bos te li metti nak bis bu yàlla sàkk ma la ci man lay gën a méttee ndax yow kat doomu garmi nga dangaa war a toog waxoon naa la ko bu yi yépp jàllee nga dellu ca la nga nekkoon waaye ñaaña ak lu mu metti metti waroo woon wax la tiir dara xoolal tey maa ci nakar ndax lati daf ma bëgg bay, bàyyi te loolu nekkul lu ma neex ma Latir moy sama lepp suma baye fan la jëm. Ndéla lati du la baye ndax bëgg bi nga ko bëgg bu ko raw la la bëgg waye lima lay wax ni sa njariñ la sama njariñ la te njariñul seen digënté yeen ñaar la bis bu yalla sak nga fay dem digënté ngeewul ak fi puutu bi dafa sori bis bu ne ñu tibbal la lek da ngay toog ba seen xel génn ci. loolu mooy yoon toogal. dina ma tiis lool waa léegi naka laay def. mooy li ma la wax li ma lay digal mooy nga toog ba lépp dal nga dellu fa nga nekkoon. baax na dinaa ko def moo gën de waaye dina metti lool ci man

voyage benn li ngay wax woom na la bu baax sax woor ma tax ma sol sama dal ñew ba loko, egge nama ko na ma de bis bi de amna ci mbégte lol te tay nak neexal buma la digoon tay la la koy jox ah, lol neex na la may grand bubu palman lan teg ci fukki saaku dugub ak fukki saaku mboq waaw ah, loolu ëpp na nag te kat nag des na am na yeneen ak yeneen yu war a ñëw maa la wax lii yow daal jàppal ni lépp lu ma xam lu ma fortaatu sax waxuma la dégg de waaye lu ma fortaatu sax dinaa ñëw yegg la yow daal boo ko dee doxalee nii moom jàmm rek nga am nii rek laay def man xam nga ne bëgguma lu la metti bëgguma dara lu la lu ma dégg rek man damay ñëw waxtaanee ko ak yow. tey moom bég naa ndax yaay sama doomi ndey. tey yow yàgg nañ démb lañu woon tey doogu a ñëw. tey moom am naa mbégte ci yow lool sax. lii laa koy xal di doxalee nag saa su ne. te sax palmaan nag amaguma ko woon Yacine Pène. bu dakkul du dakk de. maa la ko bég naa dugub ji nag moom xam nga sama kër na mu mel. testé si naa ba soon nga jox ma dugub ji toll nii. yow daal am nga jaaraama. kon baax na jërëjëf kon nag maa ngi ñëw yegg ci kër ga waaye na xam ne nag lépp lu ma xam dinaa ñëw wax la yow kay nay ñëw rek sama bisub tey jii nag hmm. am na tàmbali de waaye bul xam fu muy yem hmm. bég naa lool ah man it de bég naa man it na xam ni hmm. xibaar yi ma lay indil bul xam fu muy yem lu ma dégg rek kon jeex dinaa ñëw yegg la ko kon jeex na. ndax yow xam naa lu ma la wax kenn du ko déggaan maa ngi yow yàgg nañ xam naa sa jikko. xalaatuma ko. maa ngi noonu baax na maa ngi yegg kër ga. yaa ngi dem maa ngi dem su ma doo toog ñu gën a waxtaan. ngoonee takk mbaa ma ñëw jël si dugub ji. incha allah maa ngi baax na ay am naa mbégte de. laay man mi tey jii. ma jëlee de. maa wallu waaw nur naka yaram ba deful dara alhamdullilah ma ngi sant bu baax ah, alhamdullilah wa keur gi ma ñepp ngi alhamdullilah ñepp ngi jam baax euh tay nak dama bëggoon ñu waxtaan hmm waaw ndax yow da ngay sama genn wàll ah, lool mom dëgg la ñu yag lool defandoo lu ne hmm. euh sama diggante koddu hmm. latir hmm. wax na ma ni dem na fa ba waxtaan ak koddu te waxtaan ak bay jabel ba ñu jubo ci ay kaddu man rek lañuy xaar ngir fasal ma mais hmm. du ma si def lu ma waxtaanul ak yow. Hmm. ah Nooru. Hmm. loolu de maa ngi koy rafetlu bu baax. ndax kat olof dana garab boo cay yéeg. da ngay jaar te dàtt ba. lu wér nga wax. te lii nga def nag. mooy fulla nit bu gisee lu mu bëgg. da ciy dox tànk fulla waaye nag bu ma sañoon. nga waxtaan ci ak magum dëkk. ndax bëgguma kër la daloon biir ma dal loolu daal bëggoon naa nga def ko waaw wàllu wax nga dëgg lii moo tax diisoo am njariñ mhm. dinaa ci waxtaan ak magum dëkk mhm. ndax moom paaka la kenn du ko jiitu ci mbaram mhm. dinaa la xamal ñaar nag mu ànd si dinaa ko def mu bañ ci ànd sëy bi dana am dama koy yëgal rek ah waaw baax na waaye lu mënta am rek yow defal sa wareef rek. Mhm. nit ki moom day def la ko war rek. Mhm. leneen lu magum dëkk def nag. boobaa ñun lay jàmbaar lool. ndax li nekk Fuuta moom. Mhm. bokkut ak fii nii. boo ko waxee dinaa ko gëm ay bañcal lan yow moom bañcal nga te sama genn wàll. dëgg la incha allah dinaa ko defee na jërëjëf. jërëjëf wàll na jërëjëf noonu xam naa maa ngi ñëw àggaat daara ja ah a gis rek mën naa fi ñëw. waaw nga sama genn wàll nga. sama tegal yàgg sama la gisul rek. def nga lu rafet laay wax. <laughs> lii moom lii moom bettuñu ci yow. dëgg la yaakaar naam jabeer tey de dama laa seet si woon yow rek laay déglu ndax umpule woon fii ci tund ak li ko wër yëpp yow rek la ñuy déglu dëgg la ak li fi xew yëpp te kenn déggul nga yëy yàbbi ca ba ci sëyub gone yi ma yaakaar da nga yëy yàbbi ca yëyoo yàbbi ca ma lay laaj si nag ana lan moo waral lool jabeer li tax yëyu ma yàbbi ci daa nekkul luñ war a yëy rek yàbbi ci sa biir wax wax nga ne dëkk bii may yaakaar ji waaye yemuma ci may aar tund wi yëpp kon bu mbir amee te waxuma ci rek dama caa war ta wax ba jabeel yow nooy lijjantee te war laa lijjanti xanaa xamoo ne kodd mi nga fat ci sa biir kër gi di doomi ngàtte ay wax yu baree ngi ci kawam te nag na nga xam ne magum dëkk mën naa xëy ci jamono bu ne ñëw jël si ko ndax jabeel da ngaa fàtte sa digganteeg magum dëkk ci ko ci ci ci ngàtte kon kay yow xanaa dañ laa war a lijjanti ana noo lijjantee ajabeel kon du sama doom li nga jàpp ah te moo amit déedéet ndax magum dëkk nee na moo jur kodd te yow sax jabeel xanaa da ngeen danga da ba ngay ngoro ngàtte jaww magum dëkk lu ne daj ngeen ko ci ndax saa yu ngeen masaan daje bala ngeen faa jóge jote loolu lépp nag ngàtte rekk la ndax daa waroon a leeral laataa muy génn àdduna akay ah, xanaa yow la leerut waaye kay wax na lépp baay fekke hmm. te nanga xam ne magum dëkk xam na ne koddoo ngi sa biir kër te nag saa su ne na xam ne mën naa dal ci sa kaw waaye yow it yëg naa mbiri Ndella Yacine te waxtu ne mën na maa dal ci kaw mbirum Ndella Yacine kon jabeel yëg na mbirum Ndella Yacine doy waar begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.